sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin asalaamaaleykum mbokk yi ñi seetaan ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon di am mbégte nag dellusiwaat jàkkaarloog yéen comme ni ñuy baaxoo di ko defee ngeen samedi bu jot ci waxtu bi ñooy ñi di bégal waa ñooy ñiy génnee tamit seen stress di wax rek ne ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax ginnaaw bam ñu mayee ba ñu ànd ak kàtt nag mën-mën ba mën a teewaat jàkkaarloog àdduna bi toog di ñuy seetaan fu ñu mënti nekk nag ci àdduna wër nga këpp fekk nañ leen fa nañ leen jàpp bu loxo suñu juróomi baaraam nuyu leen comme ni ñu nuyoo buur ñu ngi nuyu njiiti réew mi ak ñu ne ci ginnaaw yëpp di ko ñu fàtte ay soxnaamit lu bare bari di nuyu njiitu kër gi Alhaji Mohamed Dia du ñu fàtte di ko ñaanal jàmm ak salaam ak ñu ne ci kii groupe yëpp entire team groupe waagaan show ñi ñëw ak ñi mënula ñëw ñëpp fu ñu mënti nekk ñu ngi leen di bàyyi xel di leen nemmeeku lu bare bari su ko defee bu loolu weesoo rek ñu kaayam ɗo ko weccog jol mi kayen kayen e mohamed ñang ñang baalo bira ñeme kere salamani biram cam kono ma job jomum ñaha ni ki nga xamante mooy Omar ak ñu ne control room ñu ne editing room ñu ngi leen di bàyyi xel lu bare bare di wàcce na ku ci nekk sa wàccuwaay eh, kon tey li ñu def rek mooy dañu nuyu kilifa diine ci réew mi kilifa aada yi ak imaam yi nga xamante ne ñu ngi ci gox goxaadi ci réew mi fu ñu mënti nekk rek na nga gis bi leen yoo gis ci sa bopp bu baax a baax ñang baalo maa ngi lay sargal ñoo ngi lay fay bu baax ñang baalo di la ziar di am mbégte ak bu baax a baax di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog sa télé ñu ngi lay ñaan fañ suñu nuyoo di fekk ci yow na fekk nga nekk si jàmm kon ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu adduna yëpp comme ni ko tënkee nuyu nga réew mi yëpp kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex di ziar képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee waagaan show ba saay bu jotee yow doo bàyyi da ngay bàyyi li ngay def yëpp kër yaa ngi toj mm-hmm. di xeex ngir dama koy seetaan doo ko seetaan. loolu dañ ciy jot information yu bëree bari <coughs> maa ngi jégalu bu baax a baax damay ko soñ mi xaw a kii. ko nekk du kuréel na nag. Mhm. <coughs> maa ngi fàtt sax. di leen nuyu bu baax a baax di wax ne am na ñoo xam ne bu waagaan soo jotee dañuy téye remote bi. Mhm. ne kenn du toxal télé bi. Ah, loolu ñu ngi koy yëg kon yéen ñu koy def ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm saay bu ñu toogee li tax ngeen téye seen remote du ngeen ko rëccu. kontaan nañ ci loolu bu baax a baax di wax na nag ni ñu réew mi ñaanal ndax suñu mébét ci réew mi mooy saa su ne nit di bég ne donte nag wax dëgg yàlla nit ñaa ngi kontaan di bég waaye nee naa doyul ndax réew dafa am lu koy doxal lépp nag ci la moo xam culture bi la moo xam njàng mi la moo xam leneen ak leneen la dafa am loo xam ne nag mënuñu koo ñàkk wax mooy képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réew bàyyil xel bu baax aada ak cosaanu réew ma nga respecté ko dafay tax réew ma di dox maa ngi koy def moo tax tey Mouhamed samp lu mel ni kiiw QTV di wane lu baax li nga xam ne moo nekk ci réew mi dañ koy jaaral yàlla defal ko tawféex ña baalo kontaan nañu saay bu ñu toogee fii bu ñu taxawee fii suñu xel day sori lool suñu xel di ubbeeku ci ñu bari ñoo xam ne buggoon nañ leen a tudd delloo leen seen jukkal waaye teg leen seen wàccuwaay waaye manta ne ndax lépp ñëpp la lu ne ku ne nga ca waaye bu ñu waxee ëmbaale nañu ñëpp kon jàpp nañ ne tey dañuy bég kontaan lool ci yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bégee saa su ne ma delloo la kàddu gi nga doxal ma del suwaat ñu doxal ba yëg nga ne da ngaa ah, ko waaw ñu ngi ko doon tuumaal nag waaye maa ngi koy doog a gëm gannaaw validé nga ko ah, kontaan naa ci yow am na sa sañse ah, baax na jërëjëf euh, kon tey ka ñu njëkk a dem seeti mooy lawyer Ousainou Darboe hmm. buñ ca jógee dinañ dem seeti ki nga xam ne mooy Donald Trump hmm. mi fi nekkoon président ci réewum Amérique hmm. buñ ca jógee dinañ dem ak short break nga maa dimbali rek nga tëjee Donald Trump ah waaw te jël rek. amul benn problème kon bu ñu jógee ci loo Ousainou Darboe dinañ dem seeti faana faana. Mhm. bi xul di ñaxtu ndax jaaykatu cere la. di jaay ay mbaxal waaye dafa seetlu ne saa yu demee marché rek lépp lu mu jënd dafa yokk. Mhm. mu ci xultu na xultu bu metti mhm. waa li ci li ci gën a metti nag ca la muy xul mooy mbirum ganaar buñ jógee ca la dinañ dem seeti kooku di Donald Trump nekkoon fi njiitum réewu eh, président foofa ci diwaanu Amérique eh, te joge fi bu yàggul keneen wuutu ko. Euh, kon mel ni tey loolu mooy li fi a waaw am na solo kontaan ci yow bu baax a baax list bi am na solo mm-hmm. ndax lépp actualité la mm-hmm. waaw mu ngi noonu comme niñ ko waxee rek gis ngeen ko list bi am na solo kon yaakaar naa tey di ngeen bég ci li nga xam ne loolu lañ leen indil di nuyu nag suñu bàyyi suñu xarit alaaji Ali Mbay bëgg mbaxal taay wax dëgg yàlla ñu ngi koy kontaan ndax fu nekk mu ñu fay ñaana nit ku baax ku xam boole na ñëw ñun suñu bàyyi Matar Sarr ndungu ci arène ak mboolem koo xam ne kilifa ñuy seetaan la rawatina sama papa sama xarit Omar Ñang Baalo Birane Jama Ker ak Salamani Birame Thiam ca Badji Estate ak sama yaay Gammu Fall rawatina imam bu kër Alaaji Karu di suma xarit di suma tooma Mouhamed Niang ak mboolem ku dëkkee alaaji këru ñu ngi lay bëggee ko defee rek ñu ndokkeel bu baax kooku di bàyyi alaaji Ali Mbaye bëgg mbaxal ci mm-hmm. ubbite eh, jumaa ju mag jooju foofu ca Mamoud Fana ah, mu nekkoon xew-xew bu rëy mm-hmm. eh, boo boo bàyyi xel sax lu lu yemook àdduna sax dajee na fa eh, def fa ay ñaan sotti na fa alal ju bëri sotti na fa ay nag yu bëri mu bàyyi ñu bàyyi xelit lu bëree bari ne <coughs> lu jum ci wàllum diine ak l'islam def ci faral lu bu baax a baax a baax kenn du bay alaaji ñu ngi lay ñaanal lepp lu mën rek yalla nga mën lu ko raw ay ati ati ati at da nga yàgg fi nak te wër te bu ñu suñu borom bëgge daf ñu fi lay bayil nak yow sa eh, dundu dafa am jëriñ yaangi ngi fu graw ba yalla Hadj Ali Mbaye bu waxal waaw waaw ko kenn du moom la xam nga lan moy problème am mm. li ko na to moy jakk ak juma waaw lu dem Gamu siyaare jangum alquran tabax ba tabax kay néew kërëm gamu siyaare jangum alquran séti kilifa diiné daara ak teral doomu ak daara waaw jënd ay matelas yóbbu ci daara jënd ay maalo yóbbu ci daara joxe ay dund ci daara ah. bu tam xarit jotee mu yeew daara ju ne ah. nag ah loolu de xam ne kay wax am na loo xam ne fàtte nga ku yóbbu nit màkka wala faas mhm. ak a gaaw <laughs> waa bu loolu weesoo léegi la ñu njëkk def rek dañu njëkk a dem seeti kooku di looy Ousseynou Dabo suñu maam waa ñu dem déglu ko léegi nañ ko def maam ñu ah man. xam nga boo bëggee boo bañee problème nañ ko def. maam man suma maam la de. ah Aïcha ma fekk si la. man sama maam la de man damaa bëgg nuun gi saa yoo koy wax de ko maas. looya. Mm-hmm. Ousseynou Daabo suñu maam. waaw moo gën. waaye sama moog sama maam bi jur sama moog sama maam bi jur suma papa. te papa ban si. Omar Niang du Omar Niang mi ma jur rek. Omar Niang bima ma jóg ñaar seen ñaari maam yi bokk benn bàjjen. Omar Niang mo mo dem luye ji la. kamu xamul la xew. Omar Niang mo nga luye bokk ak daabo rek déedéet bokk dara <laughs> kon ñu dem seetaan ko ñu des wàcc lu bañ yag sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar yi ji. jabaalo ya bu. hey ndingoo bu ndingoo bu. <laughs> allo. هاي يفعل يفعل مدها eh ngona kata ni o muna kata ha ni muna kata jimala ko fama be nyadi ha jumaa la ngo ani ah, ka anka eh, ngo eh, ndi ngo ila moy ila moy ila moy ila moy dunia ja ngo ila moy ikana kumbo hani ngo ndi eh, ngo ikana kumbo yalo dunia be wo nyamale wole wole mo yalo idol hani ikana kumbo ni kumbo den dafa na be kumbo ha ndiye kumbo rendabe kumbo lale ikana kumbo ma, uh, mani yaru male ngendi saga mota yaru denga eh, ko, eh, kula kula kulen saga kulen saga man ma wahde kulen saga ngen bay ko bulen fale ken nda yenda ngen yaru du ngen saga bulen joy ikana kumbo honey, honey, honey, fanang. Kumbobola ifana nkumbobola nima nkumbobola into bakumbola nima nkumbobola into lebakumbola inna lillahi wa inna ani benyunkhuphela nimakhuphe into fangole bekumbola into bakumbola le dunia ndakabina harina leki kowadi saka mawale mpule nsaka ken Haramakol QTV foog ma wax ak nit yi ñu dégg xam nga lii itam baaxul politique rek la ah yaa edete bu la hello hello oh, ko QTV waaw Hadinyang okay you my house now now okay dégg nga what I mean yeah okay ma doom yëpp sonn na ngay jooy ñu ngay jooy nit yi di leen saga ah mu ne atin na ni mool be ni mol <coughs> be politiko lay bari politiko e, e politiko lam bari ye ye ye mool neng wo ma ñanna kala mool yi ma ñanna mool nene. fix leen ma caméra yi. Eh? ah uh, Mr Dabo. naka nga def yaa ngi ok. asalaamaaleykum alhamdulilah sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah macha allah. yow yaa jóge eh, eh, eh, tv man la benn waxkat bi nga xam rek lu ah, xew may ñëw da nga am waaw tey gis nga dag ma ko rek ma solo la yelo suma yelo la wa may la yelo bu sap saf mu indil la ko yolo bi dafa rafet de dafa torop torop ñu bari de de waane Dabo. waaw sa yelo bi ba wa wa deug deug dëgg dafa rafet na fu ma romba ci dekk bi ñu na ma tey Dabo nga. wallahi hmm yalo yelo. hmm yelo le mu kolati wa wa birim bi hmm biri be angleterre nga parti kol nga foye ko ni naata mm. be parti lo le bari ni nga londi mbe nyin yelo nyin lo ke kolati mm. yelo mu bet fen kol mo yelo yelo yelo defa ba to nyalem ke xam nga bu affaire bugande mm-hmm. warlu won ne ka red mm. dafa waron ne ka yelo wala mu real love ne man ne ko ne amoy english ko real love waaw déggol lu ci taasukat bi wax xanaa real love yeloo leen taasukat bi déggol mu ako ñaadi lii soon la lii soon la lii soon la fii ku fu sonn sonna la sonal lii soon la ñu bari dinañ sonna waaw waaw because seen xol yi du ne ana sa gewel bu njool bi mu fii mu ma moom ñu ànd waaye mu si mu ngi ñëw dafa ànd ak caméra Omar waxal kooku su paree may gi mu ñëw waaw waaw lii soon la lii soon la lii soon la fii ku fi sonn sonn na la sonal lii sonn la ñëwal lii sonn la lii sonn la lii sonn la dikkal fii ku fi sonn sonn na la sonal lii sonn la lii sonn la lii sonn la lii sonn la ñëwal fii ku fi sonn sonn na la sonal lii sonn la lii sonn la lii sonn la lii sonn la ñëwal fii ku fi sonn sonn na la sonal lii sonn la lii soon la eh, lii soon la eh, lii soon la fii ko fi sonn sonn la sonal lii soon la baana baana mhm. <laughs> ya wala kañantale sila kañantale yàlla soo gisee eh, mawa xaaral ma toog toogal toog sax nag ñu wëndeel la toogal toogal toogal bu baax waaw pere waay pere waay pere waay ah, pere waay Eh, bi maam ku ko am loo di wax bi maam saay bi maam ku ko am loo di wax bi maam saay bi maam ku ko am loo di wax bi maam saay eh, bi maam ku ko am loo di wax bi eh, maam saay bi maam ku ko am loo di wax ay ah, siino la de am nga dafa nelaw bee neex jugal ah. tuuti nelaw dafa neex da baaka moom hey xaaral moom maguma ko ah, ah. soo waxee loolu kii dégg ko foog ne dama ko nangu. te xaaral ba élection bi mu pa eh, eh, eh, passé. jàll nga toog man nga bugg a maa rek nii. nii xanaa waaw nii laa doon def rek. bii maam ku ko am maa ngi gis maa ngi gis ay xale. ay xale gisuma leen de. li maa ngi nii maa ngi nii. xool ko ah? maa ngi nii. kala. Darboe. naa maa ngi. ma ah. yàlla nga toog waa ñëw leen fi si bi. Hmm? voilà waaye Mr Darboe. Ah, lu la naxari ba nga kool ma ne naa ñëw. loo bëgg a wax si réew mi. Hmm. <coughs> da a xam. waaw. réew bi dafa toola foo xam ne foog ñu waxante dëgg xam nga ki ki ma déggoon fan yi muy wax mm. ku sew ku lapa lapa bi njool mm. yow xam nga ko bu baax kii kii déedéet wonte ah, kii ah déedéet jëru waxturam rek ani ba be ko be ani wo def ma tuda def ma tuda dina ko tuda déedéet wax rek bàyyi sidi ya jaata eh yaa def ma tuda te bu ma nekk tuda yow yaa ko do interview ah? man eh, eh, la mo eh, la mota wahulo ko ne bul tuda daabo saytaane nga ah, ko yow moom mi waaw ngani ko saytaane dégg nga wolof ni kon man dégg naa or soo awo bi ah, wolof dégg nga Sidiya Jaata lu muy wax hmm. yaa xeli nit rek ah. parce que time bu mu nekkoon waxuloon hmm. tay ba time bi eh, eh, mu ne dama wax pour yaxal yaxal Daabo ndax Daabo nit mu na ko eh, yaxal si réew mi loolu baaxul ma ngeen nappe la nit warloo loolu kenn hmm. kon noonu nit waruma def loolu te réew mi mm. mm. dinaa ko nangu te ko ci loxo yi wóor pour mm-hmm. ko defee bu ma dee ma mm. taal te xale buy jooy nii suma doom la mu ne la mu ne moom nu ji lu bon dégg nañ ko léegi dañ ses Eh, eh, eh, ma ne ko bul woori. léegi luñ bëgg a def ci sës gi fayu wala. bu déedéet dañu bëgg a ne. dañu mer daal dañu mer. Mm. ma leen politique noonu la. Mm. yéen da ngeen yaru. Mm. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy saaga. Mm-hmm. ñu yaruwuñu. bu dem faale. Mm-hmm. man yaakaar naa dégg saaga. dégg la saaga. ay saaga. maa da tul yow dafa dafa tul sa yaram bi. saaga kooku ndeysaan waxatal loolu ah, ko neex loolu saaga di di ko teg man saaga ah. ma ne ko hanga lalla mm. bu leen joy saaga man yaaga na dega waaye wëndelee ma waaye. wëndeeloo bi maam ku ko am loo di wax. bi maam saay bi maam ku ko am loo di wax. bi maam saay bi maam ku ko am loo di wax. waaw bàyyi leen ma ma jóg bàyyi leen ma ma jóg damaa jóg. bàyyi bàyyi puus ko mu dem waay. may leen ma ma taxaw toog sax soo jógee ma utu la. waa jawar indi toogu bi mënu maa taxaw. ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki Jogal da nga yabaate. toog bi yow waruloo cee toog waroo cee toog. toog bi da koy dafa yeloo. góor toog. te toog bi toog puus leen. bii ma am ka am loo di sin ma ngay nelaw. bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin. waa ndaw na yaram. àndoote. daw na yaram de. àllàndoote. waaw waaye nag. soo bàyyi xel sunu ma duna yàqal sunu àllàndoote. lii doom ji wax tamit dëgg la. waaw waaw waaw. xam na nag gis nga waaga. social media lim yaaxa dafa bari. trop. yàkkam dinañoo <coughs> xëy rek gis waagaan mu rëq benn tànkam rek hmm. ñu tasaare ko àddina wërngal këpp diiri ñaari waxtu àddina yëpp jot nañ ci man paa bi sax dama koo gëj a gis waaw bu ko xam nga yooyu ñu si ah, bàyyi xel parce que nit ñi dañu am njaboot am yaay am papa am jabar am ay doom ñu bàyyi xel bu baax ci yàqkat yi ñu ñuy seet lu ñuy def ah, euh, boo demee nag ba doom ne papa dëgg-dëgg suñu xol neexul ci ñii lu ñu lay def di la saaga nga war a xam ne nag am na fu mu leen toll xam nga loolu dafa am solo maanaam réew boo ci nekkee nekk fa kilifa war a respecté am na solo. kon suñu bàyyi Ousseynou ala euh, Ousseynou Dabo ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la wér ak kàttan gudd fan ndax nag dëgg yàlla bokk nga ci mag ñi réew mi yaakaar. te yaakaar naa minute bi nga ko defee maam nga ko wecc def baay. maam la ñu jógee fa waaw kon ñu dem seeti ki nga xamante ne rek mooy meeru faana Fana bay jaay ca marché ba. ne ne dugg na masse di dugg waaye lum mu dafa seer lepp lum daan dalasi tay mu nga ci jurum te loolu nakari na ko lool ñu dem seetaan ko lañu koy waral kay wa déglu ko te ah, desiwaat wa am amna solo Aïcha sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi din bu yewoo samari yo gis nga marsi bi ni mu yo ma di marsi bi fim nek ni ma ñak sama ne dina ko ba man moom dama ti yow daal lu sama jëkkër jox buma ma ba ci ganar yi mu nda ganar yi da mu mo sonal mo xaw ma jëkkër bëgg ganar mun da ganaar da bu bu dikkee mu ne ma togg nga ganaar ma ne ko diire mu ne waaji sedd billaahi bu ko defee daal bu ko defee may togg mbaxal rek yow gi nga diwlin gi fi ne ni ko gaa yi yokkee la ilaha illa waaw man ganaar yam ci naqar xaw ma jëkk ba bëgg ganaar mu jëkk ganaar lay dundee moom da ma toggee ganaar mu ne dafay dikk dikk rek nga fi ba da waaji sedd mun da bu ko defee daal du kontaan mané ko na fi ne sama jëkkër fi ne boo bëggee na fi ne marché ba neex fa nga yok xay bi dama ci jox ma bari jënd ganaar na ganaar fi dafa cher kilo ba nga won ci ñaar ak kilo ba nga won ci xawa juroom juróom fuk xama fi ne dem ba ci ñaat timira timira a nangam fi ne nii fi ne ku ko jënd ko ko jënd da nga jóobe bara waji cher ndax fi ne nii fa cher cher go xani na ka xamul ba diwlin nga fa cher maalo cher lepp cher jënd cher lii lum da mooy nit ñi fa ñu fa nit ñi fa fa fu ñu ko waxee ji ah man xam naa ne du jaaykat yi de xam naa ne ne xama daal num seere fa manqué xama waaye jaaykat yi ñoom wax dëgg yàlla xam ne ñoo am yërmande man jam client bu baax boo xam ne bu ma demee fa waaye wàññil ba da waaj a seet waaye fi mu nii. xabaar suñu fa jàmm ngeen. yéen a ngi xulture ma marché neex na kay. marché lañ jógee di. Hmm. marché nga naqadi naqadi boo xam ne. yow dafa mel ni ndugg la de. laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. yow xamuloo dara ca marché ba. ah xamuloo fa dara. mooy yéen ma xamee. Hmm? man sama njëkk a bëgg ganaar. te ñu ne ganaar fañ ko yokk ganaar fañ ko yokk dégg naa ñu ne kilo téeméer a juróom fukk. yow yow yow kilo ba ñeent ñetti ñetti ganaar la di ñaar ak xaaf. ñaar ak xaaf la di. ce nga hmm? henene barki démb hmm. boo nee ca marché ba ñu ne fa ñoo waaj yokk dama dem ba leen ko yokk ndax man suma jëkkër jële ganaa laa dundee ma yow sax noonu defak sa njaame yaa ngay jaay cere ak baase cere ak mbaxal meek eh, cere ak mbuum ma faraatoo xëy na ko yéemeen mu dikkee ci marché bi du ma xam nu maa jënd faatu def xémmu xémbee ndax loolu laa ñu dafa cher hmm, waaw waaw jëf ah, saab jën bi saab jën bi rek saab jën bi rek moom fa nga ci fan to togg ba ñu la waaji dukkat waaye fi ne téeméer bi sambi téeméer bi ñaar téeméer ñett téeméer la ñu wax fi ne nii mm-hmm. fi ne nii ñetti téeméer la ñu wax fi ne nii waaw ñetti téeméer la ñu wax ñetti téeméer xangale ñetti la ñu wax fi ne nii dellu cosaan dem uti dugub ko jëlee fa nga foog ne ñu da bay dugub fa xayoo leen dukkat fa nga ne la jox seen dugub bi ah. boo ko bëggee fa nga dem àll ba bay ba la waaji sedd ñu doon am nga nga bu ne ma ne ma ne bu defee ne ma ne woon caale ba ne bay dugg fi ne nii ka di ka ne ma jox ma sa dugub ji ma ne ma ma ne ma ma ma bañ. léegi nu ñoo def amuñ dugub amuñ dund. léegi li ñu war a xam nga lu ñu war a def ni ñu ni ñu jiyee dugub ji mu dem ba de sax moom lañ war a jiyee kii ganaar ganaar yi. ganaar yi fañ ko war a ji waaw. yow waxagoo sa soxla. ganaar yi fañ leen war a ji. ji ganaar fu mu am. fi ne boo njiitu réew mi wala ñu dëkk ñu nekk ci réew mi fa ñu waroon a hmm. génne xaay boo bëri jox ko xale yi ñu doon jeex tuuti ganaar yi de cuuj bi si ci digg rek. ñu baxal fi yow ñu baxal ko di ko taxaw fi de. nga la waaji seen sama pël bi ñoom dëkk di. waaw ah, yéen a dëkk moom fa jag di waaw. Hmm. barki dem ma ña moom fa rek ñaari doom je par ñett laa génne ñeent. ay ah, yow wàll ma ñaan ma ma Cheikh. fa la waaji die. waaw ñaan ma ma am Cheikh kon kay. Hmm. wallaay dégg nga. Hmm. mu nekk mu nekk dëkkandoot ba baax ba waaye dem marché ñoo daa ànd. waaye fi ko fi. man faa la gëj a gis sa jaayukaay ba xanaa fa nga ba njaay mi. banaa a fa cher déet waaye mbaxal mi kay nag gerte moom jafewul lool. gerte jafewul foo ko jëlee. cere ji na cere bi lan faa ko tal li ma war a indi ah, yokk nañ ko waa léegi nag xam nga nooy def maire Hinca jàkkaarloog bët boo ndaw bii waxa président Adama Barrow. loo ko wax. ne ko mu bàyyi xel ki ne ki yore ministre bi nga xam ne moo yore wàllum lekk nit ñi. minister of trade. mu génn wax ak ñi ci marché bi xaw ma ñi ci marché bi ñoo yokk xaw ma ñi ci marché ba fa ñoo jëndee. ñoo yokk yow xaa waru cee bokk. yow foog maa bi na ba pare taxaw fi na xaar. ay de dama la dama dama bëgg a. laaw lu leer lu leer laa lay ah, ma ne. xaw ma ndax ñi ci marché bi ñoo yokk. wala ñi ci marché bi fa ñoo jëndee ñoo yokk wala fa ñoo jëndee fa ñoo jëlee mu ñëw moo yokk kenn xamut. xëy na nag boo waxee moom bu génnee wax ñu wàññi. wax nga dëgg waaw waxal ak borom bët bu ndaw bi man fa ndax fa ma xamut. boo waxee mu xam la yow sa mekko bi ku la si xam la. mekko ban. mekko bi nga def ni nga rëdd yooni baakooti nii. moom ni lay doxantoo marché. boo ko doo fa la waxati fa fa yow moo loo fek dara ci marché bi loo laaj ñu ne la dafa seer wala jeex na taxawal fii wax sa soxla. dama ko te nga gis ni mekko bi lu seer laa ci fay. waaw waaw moo tax ñu rëddal la yooni baakooti highway baax na de. ah bii moo highway biir Kaamala. bii highway Banjul ñu jël nag ronal la ci yooni géej gi fu la neex jaar baag bi yëpp a ci biir kila meko moom naxu la sira lele moo ni moo yàgg meko sira moom ñaara nga ko fay nii ci kii laa daan meko bo ji waaye fa xamu fa yokkul loxo ba mu jël moom kat Mariam Mariam léegi sira ñaata la la fay yokkul loxo ñaata la la caaj téeméer ñaar fukk yow li nga fay sira baaxut yow meko bii ku la ko meko nga di ko fay téeméer ñaar fukk kooku daf la may yow kii 500 nga ko waroon a fay. ay yow benn rëdd rek jar na 300. benn rëdd bi mu la rëddal. te wax na ma ne sawaay moo tax. bii dafa am highway am na sa front mu ngi ne kon ci la baax na de. yow si la am ma moom la laa demee ko fi nii. Mm. côté banaa gën koo àcce kaw mu gën a aju. Mariama de banaa ko. yow jëlal ma kanam gi zoomal ma ko waaw waaw. rëdd na la de. suma bawoon faa ko dóor ba ñu waat dugg. Mariama de saa man naa ci Sira. waaw waaw Mariama de yenn saa yi. Sira sama xarit la ma fekk di. kan. si aa ah fa sëy si si si waaw moom si si mm. mm. ma ne ko dama ci ma yóbbu ko ci benn paa mm. mu may ko sunguf ba ko ci dee ba tey daa fa ni nit ñi fa ni weñ waagaan na ko fi goro di goro gi fa waagaan man men ah waaja faa bëgg a dee waaw de xëy na ko fase naa la na ba sira léegi nag topp sira sira di ko daw li ma wax moo ba ma wax nga wal ma sunu pañe nga wal ma président réew mi laa di waxal génneel ma sa lu ne di ñun jigéen la jegel ñoo jegee ne Gambia fay sonn mm-hmm. fi ñu nee na départ ba ñu daan jox mm. yokkuñ ci dërëm ndax dëkk bi neewut dëkk bi fa mu mu naqare moo def fa mu corona xee dégg nga gannaaw fa corona nag ñun fi ñu nee na mënuñu ñàkk lekk ganaar ah, ku ganaar mënuñu koo ñàkk lekk ah, réew mi corona réew mi réew moo corona na fi mu ne nii xëy ko dem ci marché fi mu ne nii pot gerte la nga ko yokk nañ ko gerté bu ya, ma yoké xamul jox solo waye man daal grand yi yok man fa ma naqari ak diwlin dama jëkkër ganaar leen diwlin yokku diwlin yokku waaw diwlin pot ndatin dalasi dafa ser 16 dalasi 16 sixteen dalasi hey waxul dëgg de li nga dalasi fukki fukki ah. dalasi ak juroom ben ben ah, pot bo beugé jënd ñaar ba ñett xam ngeen lima xam ngeen lum mu da jàkkar yi yow de yooni ma yooni ma bi xam na la jàkkaar yi ñoom ñoo yokk prix fa yokkoo ca kaw président bi na fa ñu bëgg na fa yokkoo fa ngay dem wàcce ko fa. Ah, ah, ah. mu yomb su ko dee waa marché koy yomb. wàccee mu wàcc de. waaw boo demee wooy fa mu yéegee nga wàccee ko fa. waaw waaw bu dikkee ñi ci marché bi mën koy. waaw lu ko mooy fa ñu xëy ba da waaj a dee. waaw waaw bu ñu xëyee fa ñoo dóor ba ñu du dukkat. te loolu baaxul yow li nga faraatoo ko ne nga demal ko sa cin lekk ba da waaj a sedd te doo am bu xëyee doo am loo lekk loolu fu mu am. waaw du may teel dimbale ñuy baroo ngir yalla dimbalé ñu ci lolé boy ci dimbalé na su xol sedd boy ci dimbalé wu nak ah du yom de. allo. dégg nga li wax fi né lool lañ bëgg na dimbalé ñu. Ah, ngir yalla ak sarax dimbalé ci ci prix yi. wàññi ko té dem <coughs> tey ñi nga xam ne da a jaay ganaar yi ci poultry ngeen ngir yalla ngeen yok poultry yi. ko jaa ni da wax rek. ndax ndax ndax ndax ñun fañ bëgg a yàpp ganaar fañ ko bëgg a yàpp lañ bëgg ñu suñu xol. ñun fañ bëgg a yàpp baro ñun fañ bëgg a yàpp suñu xol fi ne. yàpp ganaar fi ne nii wañé ko baal ma wàññeeku tamit waaw yàpp ganaar bi laa ko hey sa jëkkër dama baa hatta mu ne ah. wax nga ba réer fase na sin ma nelaw bu yeewoo xalam bu yeewoo samar waa gis ngeen ki nga xamante ne rek mooy mairie Fana Fana boobu mhm. ah, nekk di ñaxtu bu baax a baax ci jafe-jafe bi nekk ci marché bi mhm. waaye nag na jàpp ne waxal na boppam waaye waxal na it képp kuy doomi réew mi mhm. eh, surtout na nga doon jigéen di dem marché di ndugg eh, képp koo xam ne nag demul marché teewul pañe yorewu dépense nduggul mënula xam li jigéen ñi di wax ndax métti na tey jii ki nga xam ne two hundred dalasi rek lay am te amul maalo amul diwlin amul liñoŋ amul benn ndugg bu demee ca marché ba benn two hundred bi mënulu dara dara ki yore nag ndugg mi yëpp biir këram sax bu demee tuxandet mënul ko dara kon ne bàyyi xel bu baax si jaaykat yi dañuy yokk xaw ma nag yokk bi ci kiy jaay la wala fa muy jëndee la wala fa muy jógee la waaye métti na lool si jigéen ñi. yéen a ngi tiital góor ñi de. waaw ñi nga xam ne saa ñu xëyee ne indi góor ñi seen fit dem na. waaye daal xam naa ne euh, yërmande moom fu ne la war a am moo xam marché la moo xam biir oto la moo xam trafic la moo xam liggéeyukaay la nañ amante yërmande gis nga réew. Mhm. yërmande moo koy tabax. mag ñi yërëm ndaw ñi ndaw ñi respecté mag ñi ñi féete kaw yërëm ñi ci suuf ñi ci suuf bàyyi xel ñi ci mag ci ci kaw te respecté leen loolu mooy doxal réew ku ne fa nga nekk na nga fa jaamu yàlla moo xam na ngay jaay moo xam na ngay dawal oto moo xam lu mën doon xool ci sa bopp natt mbir mi ci sa bopp su boobaa lépp oyof nañ bëggante nañ soppante jaamu yàlla la ci ñun suñ ko defee rek réew mi dox gis nga bu xool yëpp àndee lu ñu yëkkati mu dem. waaw léegi ma laaj la dara. Uh-huh. lu daan jar kilo 75. Mm-hmm. dem ba etti léegi dem ba 150 ndax loolu yokk wut. waaw yokk na. ganaar fa la toll. diwlin waxatuñ ko. waaw gana ganaar moom xaw naa seer waaye man loolu dafa ji profité wax dara. Mm-hmm. ne gis nga loolu mën nañ cee profité ba dootuñ jéggaane ginaar. ni ñuy def. am na xale yoo xam ne tey ñu ngi jaar ci mbëkk mi di dem ci baak we bi. Mm-hmm. nañ leen finance nañ leen jox xaalis. ñu def ay poltri yoo xam ne. gox boo dem am poultry bu fa di saaf ganaar foofu. Mhm. bu yàggee dootuñ mën a duñ soxlaati ginaar. te su boobaa dinañ mën a contrôler li ñuy lekk ndax ginaar yoo xam ne pooj bi boo ko xoolee maa ngi jégalu ci ñi koy jaay waaye xam naa ne daal bëgg naa réew mi li ñuy lekk ñuy fexe nu ñuy defee pexe. ba di ko. da nga defee ne amu fi mu ngi ne fi waaye poultry mi munu non ah, non gis nga xoolal li fi nekk ci poultry munu ñoo dundal. munu leen a dundal sax de waaye. waaw buñ taraayi woon jàppale ñi ko fi yore. waaw mën naa amu dundal leen moom laa lay wax waaye jàppale boobu nag moo ci manqué yokku cere boobu dolli ñeex. waaw koñ boo dem fekk fa poultry poultry dafa am xaalis. Mm-hmm. cuuj yeeg nen yeeg ginaar gi ci boppam lépp alal la. te yaakaar naa ne xale réew mi buñ bëggee réew mi war nañoo mën a toog defar seen réew ci ay ay façon ay anam maanaam boo nekkee ci dara ñu jàppale la nga dëgër su boobaa suñ demee ba yàgg yaakaar naa ne ginaar gi bu seeree suñ yoon lu ci ne ndax fii lay kéeta day gën a yomb ndax lépp loo xam ne ci sa réew la nga koy deferee bu boobaa day yomb te loolu yomb na kon jàpp naa ne loolu dina am solo am na ay doomi réew mi fi ñi fi ne mm. ñu ngi yore yu mel noonu ci réew mi waaye jàppale moo des tey jii man su ma gisee waagaan amee compagnie ma amee léegi benn one million war a dem si waagaan dama naa ah su ma demee suqali naa ko dem jéggaani ci beneen réew jëndi ko mooy li may gënal ndax bañ waagaan dem mm. te loolu moo fi fees tepp ak short break ñu des waat. ñu dem ak short break. léegi yéen a gis ak yéegle yeeg xibaar yooyu fi jaar euh, di warga bu neex macha allah te mucc ayib. jaar ak warga waa ak ñi nga xamante ne ñooy American shop foofu ca Banjul. non fa la affaire ba nekk nag American shop nag dafa dagan. loo soxla boo demee American shop am ko. ah kay ñoom kenn du ñoom. waaw loolu bu weesoo nag damay dugg plane léegi jël flight wàcc ci Amérique eight hours am. eight euh, am ci balaa loolu damay potoxlu rek nuyu ñi nga xam ne. ñoom ñoo ñuy seetaan ku ci mel ni Fatou Sané Lamine. Mm-hmm. ñu ngi koy bëggee bu baax genn saa gars yi dañu sàcc suñu waxtu yi ay 45 minutes 15 minutes ñu dag ko ci yow ba pare nan la gawal duñ ko def nekkal à l'aise dafa lu la neex man ma la jox autorité bobu ay ca mu ngi nonu ma nuyu fat Sané fofu ci Lamine di ko nuyu di ñaanal yalla defal ko jamm bu baax a baax ndey so man faale wu mala man sama goro nga won waye légui doto sama goro ah wala waxul dara kon gra am problème dama ko don <laughs> nopp noonu rek wa xam nga rek da ngay noppaate di boo ah mu ne baal na ma mu ne baal na la ah, ok kon day soo maa ngi lay kontaanee bu baax sama goro ba woon sama goro ba tey di nuyu Khady Fall foofu ca Lamine di yaay ci Fatou di ko nuyu Ami Diallo euh, chéri pa pa borom borom borom UK di nuyu bu baax a baax rek ki nga xam ne mooy maam Bouré maam Bouré Diba ah, di ko nuyu ak ki nga xam ne moom mooy euh, waaw yaa Mama Ndiaye yaa Mama Ndiaye di ko nuyu ak ki nga xam ne mooy Aliou Ali Pop ak Matar bojan ak nga xamne mom moy Keba seri Baby j di contante ñom bu baakha bax di leen ñaanal tawfiq bu baax ñang balo neena naa la nag waa Tabakoto ñu ngi xaar samedi tay bi la sen fans club bi yow lan ko dipé sama fans club la waye mag yow and ñu gungé la ak kep ko xamne paré nga rek fekk leen ñu Tabakoto ñu rajaxe fa tasaare fa ci njitalu ki nga xamne mom moy euh, Aram Ndaw ak ñom yaama ñang ak kep ko xamne yaangi tabako to bok ci fans club boobu ñoo ngi ñëw may leen ñu ah kay ah, lolu amna solo kon ñu dem rek seeti ki nga xamantene moy Donald Trump kon fi president ci rewum Amerique mm. ah, joge fu bu yag amat kenn ku ko wuutu mm. ñu dem deglu ko ci gennam nu mu genné ak lu mu wax ak lu mu def ñu waat sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samari Donald Trump Donald Trump let's go let's go out of here We should go out of here. Joe Biden is coming. What is this? Let's go. What is this? What we, are you doing? We have now? to go out of here. Oh my God. We have to go out of here very soon. I told you that I couldn't go because I'm the president. Still, I'm the president. Mm. Don't say that. I don't want to hear that, please. No, you please, are not no, the president no, no, right now. No, please. Joe Biden that. is the president. Oh, no, no, no, no, no, no. Don't disturb I'm, me, please. I'm going my there. Wife, my wife, don't disturb me, please. I am the still president you are of not still United States. You are not still the America. president. You are not in still the America. president. We have I'm to go out of here. Let's go. United States in America. Don't do that, please. I say leave my baggage totally. Don't say that, please. Okay. All right, I'm going then. Where are you going? I'm going home. Um, Why you go? We are you still a president. president. We are not the president. I'm not go anywhere. I'm not the first lady. I said that I'm not go anywhere. Good evening. I can go anywhere. Mr. I'm president. not going anywhere. Still, I'm the president of United no, States. No, we are America. not the president. No, you are not the president. What do you say? We have it's to go. Mistake. Hi. I say what you say is mistake. Don't right. repeat again. Hi. I told you that. Thank you. Mr. President, All right. how are you? I'm cool. How's everything? I'm okay. You good? I'm good. What is your problem? Yeah, I want to come to witness your sign out. Sign out to mm. go away. Go back, back, back to your house. Back to my house with my house, you mean? Your family house? My family house. Yes. Do you know my family house? Yes. Don't bring any problem here because no. I respect anyone. I respect everybody. Do you know I something? respect any human being. But if you mistake. Do you know your if, time? Oh, sorry, your time sorry is for over. that. You know that? If you mistake. Our if time miss, is I will over. slap you. Do it. To be honest, right I will now. slap you. If you slap me, if you, you never slap. If You mistake, I will slap you. Slap if me. you mistake, I will slap you. If your you time mistake. is over. Okay. If you mistake, I will slap you. Mm. this you. my wife. Thank you so much. So what do you want to know about me? I'm from Gambia. Okay. I oh, am you from Gambia? Yes. Oh my god. oh my <laughs> god. my wife. <laughs> So now let's, let's go, go to Gambia. Uh, yeah. Because Gambia is, is my country. I know. We're are Fula. yeah. not a Utuba. We're are Fula. Ah, Fula. you are Fula. Yes. You speak Fula. Lumbada. Ow. Ashley. You speak Wolof. Ojara. Mama. Ow. Yes, That's not <laughs> I come with my TV okay, channel. Okay. Yes. Do you see my cameras? Okay. okay. Yes. This is your. Now you are live. Okay. Well, everybody no. watching you. Ah, okay. No, so yeah, sorry, yeah, sorry. Yeah. That's very good. American people. Yeah. Yeah. I'm your president, Donald Trump. Trump. I want to go back to my land, mm -hmm. and I want to go back to my Africa. Mm -hmm. I'm not an American still today. As from today, I'm not an American. I'm an African, mm. Gambian people, because me, I'm a fuller. My father is fuller, my mother is Tuba. Mm. Okay, so now you want me to go out? So, okay, don't worry, no problem. I will sign out to go, go. Africa. With me, I'm my wife. Come yeah. here, come here, my hmm. wife. Mm. Come around. Come, I come to help come you. Around. You pack your things. Don't worry, don't worry about helping yeah. me. Mm -hmm. Don't worry about helping me. This one, this woman is my wife. Mm. Yes. So now we can go back, back to, to, Africa. Africa, We're yeah. African. Of we course, we're African. We are Gambians. Yes, Gambians. We're Gambians. We're fuller. I know. You know? Yeah. Number non yes yeah hey my friend yes i love you i love you love you too yes man i will go i love you my i love you too oh my god i will miss you please. My bagage is already packed, man. But yeah. we miss you, man. I'm gonna miss you. You're already packed, oh man. My God. Oh. my We're gonna friend, my friend, I'm going. My good friend, I'm going. I'm going, man. The time is up. Oh, Oh, Miss Francis, please don't leave us. How are you, Francis? I'm cool. Oh, you know, I'm don't ready to go. please. They said I love, you. you. Oh we have oh, to go. God. Our time is up. You know, you, you appreciate everything. I'm a good president, man. No, no, don't go, man. Go, man. Shut. Stop oh, that. man. Hey. You want to stress me, man? All right, thank you. Oh, my God, man. You know, I'm going, man. Hi, Mr. President. Hello. How are you? I'm fine. fine. Are you okay? You want to go back Africa? Yes, I'm going no, back. Go. I don't want to pay. Oh, Mr. President. Oh, man. My friend. Oh, Mr. my God. Oh, it's my friend. It's a good friend, man. I know you Oh, now it's your sad. time. It's you have friend. to go. Yeah, you have to go. It's very sad. Come and pack your things. Let's go. Oh, my Come. God. I can come. I can so now we're going to Africa. My and father is so full of. Yeah. Now I'm going and to luggage. Africa with me and my no, wife. Yeah, African going. people, Bye -bye. we are coming. Yeah. We are coming. Yeah, African people, people, we are coming. We are not uh, African now. We are, we, are, we are, we are African. Yeah, no, no, we all all African. Hey. African people, we are coming. we Donald Trump, we are coming, man, Mr. in Africa. Trump. Uh, ah, yes. Are you speak Maninka? Yes. Uh, number. Not too much, man. Uh, Not ah. too much. Don't worry, man. Somali. After Abidjan, Abidjan. Yeah. African people cool. are coming. We are coming. We are coming, African America. We are coming, African people. <laughs> African people, we are coming, man. Donald Trump are coming. Donald Trump is fuller. African people, we are coming. American are disappointed us. African people disappointed. Please don't protect you me. You speak Wolof. Yes, I speak Wolof maa ngi ko naka ah, Donald Trump fooy dem Africa soo ñibbee ban baat nga di ka ci Gambia Gambian people Gambian people the Fula the fuller side the fuller side yes because my father is a fuller. okay yes I'm something su su tuuti jola. Oh. thank you very much <laughs> African people we are coming African people we are coming African people we are coming African people we are coming <laughs> we are coming sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar am na solo waaye <laughs> Donald Trump kañ la nekk Paul tiit kañ la am ay mbokk gàmm yow gis nga tiit tiit li mën a def ak bagaasam yu bëri yi yow tiit karamam guñ sadd gi man Donald Trump yi ku mu yëpp tiit lu mën a def loo nit li nga tolluwaay tiitaay ba mun na laa def loo xam ne ba pare buñ na la yow la doo ko gëm <laughs> man de jaaxle naa ndeysaan ndeke ñun président Amérique li mu nekk five four years yi mu toog yëpp Gambien la we don't a am na fi ay mbokk di. kon fa la mujjee man ma ko demoon interview de maa ngi ko kon <laughs> dégg ma waaj a. danaa torom kenn moom. kon mel na ni dañu nuyu rek suñu yaay booy kooku di mama Daba Dieng Sall foofu ci Yundum. Mm. anti Jogamaay Sarr ca Banjul mère Banjul lañ ko eh, léegi. waaw léegi mu nga Yundum. Mm-hmm. anti Jogamaay Sarr duñ la fàtte xandaw Sall ci trafic lay di waa Jobaate Kunda famille bi yëpp. ñu ngi leen di mm-hmm. bàyyi xel eh, di nuyu bu baax yaaro roxi bitey ci Amérique yaaro roxi Senghor ci eh, Banjul nit nuyu Seynabou ak Ndey Jaata ñaan leen jàmm ak salaam Fat Sall du ma la fàtte sama magu bopp di la ñaan jàmm ak salaam waaw waaw di nuyu Ndey Yaama Sall sama mag yooyu nga xam ne kenn du yéen ci baaxkat yi ngeen di nuyu bu baax kooku de aji faat saw suñu alkaali ba ca farato anti aadu boy faal euh, ku baax mu ngi noonu moom sama yaay bopp la euh, ci bakaw man lay nuyu bu baax di la ñaanal jàmm ak salaam awam buuba jëli kenn du yow ci ñun mm. ñu ngi lay ñaanal yow yàlla defal la jàmm yaak sa njaboot euh, mel na ni waagaan tey lii mooy li fi waroon a jaar ci ah, bés bi ma jaale nag Aïssatou Dramé ndax dañu faral di ko tudd fii lu bari ci sunu programme mu ñu seetaani foofu ca fas Mbaaw ca Ndakaaru yaay waaw rakkam di wujjam Euh, génn àdduna génn àdduna bu bette bu métti ñu ñaanal ko li ko fi yàlla joxoon mu ba ko fi yàlla barkel ko xaare ko ci àjjana si ñu koy jaare kasetam ak jabootam yëpp bu baax a baax mu ngi noonu am na solo di ko wax ne rek di wax ne rek euh, ñu ngi waajal sargal waagaat mhm. koy waxee rek waaw sargal waagaat sargal waagaat waaw mu ngi ñëw épril anniversaire boo xam ne suñu carrière la mhm. ñu war koo def nag ànd ceeg waa réew mi yëpp Ah, waaw nañ ko bàyyi xel au du 4 avril incha allah. waaw fii ci réew euh, fii ci Gambia. Mhm. Euh, bëgg nañ mu wàcc ba zéro. waaw tool de yaakaar naa bu ñu defee anniversaire ba pare. ña ku koy defa di nga ñu bàyyi xel nag waaw waaw ku koy day tàggool ñaan audience ñu may la ngay door a def mu ngoo kon jeex day def ba pare sax def jeex soppe xadi ña nga waagaan nga na nga waaj te xam ne waaj jot na di nuyu Sadar ma nee ma di ko bégee bu baax ak Mariama mhm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax ña mbaalo mhm. di nuyu nag nga xam ne moom mooy fay création waaw waaw samedi bii di ñëw mhm. daf ko bëggoon siif tey ma ne ko déet bàyyil Ibrahima mu noyyi ndeysaan nee na samedi bi bu ñu solalul non day reet day gaañu. nuyul ma Thiam euh, Creation kenn du moom moom waaw Thiam Creation ku baax. Mhm. am na ku ñëw Adama Thiam sax fan yëpp mu ngi ma bëgg a gis. dèjà pour ne dafa bëgg ñu dem mu solal ñu. dèjà waaye Faye Creation moom mooy jàpp ci àjjuma ji. waaw na a jël samedi jeeg àjjuma ji. ah du ma bii moom samedi bii di ñëw moom. du ma may Ibrahima ci Johnson la taxaw di xaar Faye Creation a fu mu jaar. loolu ma jaaxal di waaw mel na ni waxtu bi jeex na tàkk mm-hmm, abante mm-hmm, fereng mm-hmm. waaye du ñu dem nag te jaaruñ ci ki nga xamante ne rek samedi bu ñu taxawee rek moo ñuy solal ah, muy Ibrahima Gueye Aka Creation ah, lim la solal tey rafet na waa tey moo génn ci robe bi gis nga def ko piece dress la mhm. mu nekk kolo bu blue mu teg si reet ma ne ma ñëw rek kase dégal ko daal bu reet jël ko ah. jaar bu monti kolas mhm. solal ko ko ba mu baax gee njoora lu mu joxe xol la koy joxee du jox kenn jéppi la wala mu jox kenn boole ko ñaxtu ak xultu ba mu dooree ba tey tàyyiwul ba mu dooree ba tey xàddiwul gee njoora yàlla sa jàmm yàgg loo mën ren yàlla nga mën lu ko raw ay ati ati at yàgg fi tawéer Mouhamed Haydara Plaza mooy génn ci daal yi saa su mu génn ci takkaay yi nga xamante moom la ñu sol saa ñu taxawee jàkkaarloog yéen di def ba mu baax ngeen di bég muy naaj ñu ngi lay nuyu bu baax foofa ca Serekunda Aïcha ndax moom it ma nga ca béréb ba saa yoo eggee ñëppay bàyyi lu ñuy def ku nekk naan la lan nga bëgg ban kolo ga bëgg ba alaaji maa ngi lay nuyu waaye nuyu naa sama sérif bi sama cheikh bi cheikh maa ngi lu bari nuyu képp ku nekk ci shop bi di leen ñaanal jàmm lu baree bare baree bari mu nga kontaan ci moom bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek Ibrahima Gueye borom Aka Création xam ngeen ko saay bu ñu ne tëll kenn leen ko wax mm-hmm. moo fa jaarati defoon ko daaw fekkee ren di baaxantal. waaw saay ba su saay boo ko gisee rek xam leen ne tàmm na ko ndax ba soo bi dooree ba tey mook ñun la moo ñuy gunge. dem leen tabakoto ca palace ba di ngeen xam ne foofa bu ngeen fa yeggee seen lépp dox. Mhm. ndax Ibrahima Gueye képp kuy ñëw ci réew mi bàyyi nga ko xel. ndax li muy créer ci xelam macha allah ba pare nag da koo jàng ba mu mokk métier dañ koy jàng Ibrahima Gueye yow nee naa la ñàkk a ñawloo ci yow sol ko fim ci miim réew wóorul ndax nee naa la nag ah yaay ñawal ndaanaan yi. loolu dafa leer ku di laajal nguur gi ñëpp moo leen di ñawal kon yaakaar naa ku noonu. Mhm. Euh, du cuune ngeen woo ko rek ci 364 71 73. 3647173. waaw foofu ca Tabakoto. number Mohammed bi tam 3110939. 39 waaw 3110939 mooy borom Hydra Plaza. seeti leen ko ay dàll calpe piis lu ngeen xalaat ma nga ca béréb ba. jaar yu bakke ne kon mel ne ni waagaan. damay def cekkes rek a baax waa waagaan fans club. Sénégambia gis nañ seen taxawaay gis nañ ñi ngeen di waajee bis bi ñu leen salaam alañ àndaloon ak xadi ak ki nga xam ne moom mooy Sidi Jaxate sama naar bi First Lady maa ngi koy bëggee ak yéen ñi nga xam ne ñëwu leen tey léegi nag sa sa lii ñu la ñëwal tey maa lay wax lan la xamuloo ko mooy la gis nga léegi mbagg yi mbagg yi lu mu doon xamoo ko déedéet li paaxoon xol seddati na guy wax soo ko feccul doo jógee fii. <laughs> la li paaxoon xol seddati na guy waay li paaxoon xol seddati na guy waay paaxoon xol seddati na guy waay li paaxoon. ngay nelaw bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar